Touba marché Ocass ak lakk gu métti amati fi bi la yoon nag mbiri mi ngi tàmbale ci benn place bu doon jaay ay matelas ak yeneen. dafa mel ne effectivement ñaari magasin yu mag la doon ak ñu amee ay defoon ay éponge ak ay tissu ay rouleau de tissu. bi juróom benn waxtu ci ngoon jotee ba tegal fanweeri minute ci la mbir yi am mbir yi di dem lakk gi di gën a metti ndax yeneen ni place yi mu sasoloo woon tàmbalee jàpp askan yi nga xam ne nag ñoo nekkee foofee amuñu leneen lu dul seen i gët ngir seetaan gi la jëyee ndax courant bu jaxasoo ak safara si saxaar si di gën a jëli ca kaw ci mujjantal gi nag ñu yëgal ko kaseex na sapeur pompier bi nekkee ci daaru mën naan bañu ak seetam mbir yi yombul ci moom ndax def nañ fa lu ëpp ñeent fukki te mbir yi dakkul moo biñ ñëwee xam nañ ne magasin yi dañu dee nekk ay kër kon ñëpp lii suñu problème mooy que ne lakk gi mi ngi day nekk yi te dañu bañ mu jot waa kër léegi nag suñu problème mooy ñu jéem a aar li nga xam ne lakk amul lakk mooy ñu dëkk foofu ay dëkkuwaay la loolu lañ def suñu effort la foofu bin gañee foofu nag léegi ak moyen yi am séq lakk gi soog koo faj 40 minutes borom place bi nag tegoon ko bët jafe loolu gi la lakk nag buñ sukkandikoo ci ay seede ñuy xamle ne menuisier métallique bu doon suude ci la mbir yi bàyyeekoo waaye ba léegi amul kenn koo xam ne ñàkk na ci bakkanam waaye nag alal jafa dem bari na loolu dugg leen nag muy xewe ci marché Ocass ndax yàggul dara lu ni mel xewoon na fi lu mel ni aar nit ñi ak seeni alal mu mel ni nag ay jafe-jafe lañ ciy jànkonteel ci dëkk bu sell bi di Touba. ay courant ñu ko joxante am taal ak lii nag service parce que ñu nañ tey kii mu daal mérité wu ndax alalam lu ko leew la man dama xam ñu yàggal liggéey mu leew leen doom waaye nag négligence mooy indi tey dafay laaj des fois laaj waa environnement ñuy xool di laaj di leen conseil ngeen di ko suivre ah. donc maire bi ngi massawu li metti na ko lool lool lool ndax i day bokkam di bokkam léppam tey wax dëgg yàlla mérité wu lii mais nit ñi nañ jël leçon ci lii la la